ok alhamdulillah sallallahu wasallam ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in di dellu siwaat ak yéen ci daje bi ñuy am dimanche bu nekk ci suñu bind bi di aju ci wàllu fiq ñuy sukkandikoo ci téere bi nga xam ne bind na ko Aboubacar al-Jazairi ñu tuddee ko minhajul muslim ñi ngi ko doon topp ba yegsi woon ci li ñuy tuddee jumlatu ahkam war a jël tey almaddatu tasia fi lhibba wal umra mi ngi noonu almaddatu tasia fi lhibba wal umra wal uquba su dee ne bokk nañu gis fi ñu yem day wax kon la nga xamee ne mooy alxibba ah waaw 348 ci mool bu bees bi waaw 348 ci mool bu bees bi mooy fil hibba mu ni taarifuha alhibba mooy ak maye hiya tabarru'u rachid bima yamliku mooy mu joxe koo xam ne nii ku mat la ku jubla te la nga xam ne moom na ko min maalin aw mataain mubaax ci alal wala jëfandukaay bu dagan ka an yahaba muslimun li aaxar mi ngi mel ni rek julit mayoon beneen keneen daaran aw siyaaban aw taaman mu may ko kër wala mu may ko ay yére wala mu may ko ak lekk aw yu'tiyahu darahima wa dananir wala mu jox ko ay dërëm ak ay dinaar kon mbokk day wax rek ci wàllu ak may may mooy lan mooy nit koo xam ne nii doon na rachid mooy ko jub mooy majeur na te mi ngi xelam ku mel noonu la ak mayem di wéy amma xale bu ndaw bu jëlee alal bu am valeur maye ko ay way juram bu leen neexee dellu gannaaw ci loolu naka noonu it ci xelam neexut heure bu jëlee ci alalam may mbokkam yi sus ci moom bu leen neexee dellu gannaaw ci loolu amma ki nga xam ne mi ngi ànd ak xelam majeur na moo moom alalam yëkkati ko maye ko yoonu kenn newu ci loolu nag day doon aussi la muy maye doon loo xam ne ni lu baax la ci mu koy doog a maye loo xam ne dafa xaraam jullit du am droit di ko maye boo ci jël misaal bi sàngaray doog a araam am na kenn ci ñëw Madina ci kaw kaw yi indi la nga xam ne mooy bërigëb sàngaraam ñu ne ko yàlla day wàcc na aaya araamal na sàngara mu ne yonent bi kon xaaral ma dem may ko samay xariti yahud yi yonent bi alayhi salaam ne ko déedéet ni ma araame naan noonu la araama maye kon jullit lépp loo xam ne dafa xaraam dugg ci sag moomeel yow amoo droit di ka may keneen ay instrument musique la am ay sàngara la am ay lu mën a doon amoo droit di ka may keneen ku koy jëfandikoo ci loolu yow mi yer sab téere mu ne hukmuha lan mooy attey maye ci lislaam alhibbatu kalhadiya mustahabban lii di maye bu ñuy tudde hibba ak hadiya doonte ne arab hëdiya mi ngi koy gën a wax te la nga may kilifa amma hibba nag mën nga koo may ku ne waaye bu dee kilifa dañ naan hëdiya doonte ne yépp may rek lay firi iz huma min alxayri muraghabun fi fi'lihi atteem day mooy lu ñu sopp la jurit di ko def ci yiw ya ñuy xemmem loo ñu def ko la wal musabaqati ilayhi wareef la it wala lu ñu sopp la it julit ñi di jëkkante ci loolu bi qawlihi taala lan tanaalu lbirra xatta tunfiqu mimma tuhibbun suñu borom mu ne du ngeen mën a jot dëgg-dëgg mbaax lu dul li nga xam ne yéen a ko moom bëgg ngeen ko jël ngeen ko dépensé ko tunfiqu nag day ëmb la ngay sarxe ak la ngay maye lépp wa qawlihi taala bokk na ci lu suñu borom wax ba tey wa taawanu ala albirri wa taqwa dee leen dimbileen ci ci lépp luy jur njëkk ak ragal yàlla kon sa mbokkum julit am aajo daa war a ngénte amul daa feebar amul lu fajoo daa bëgg a paas amul ila axiri nga yëkkati jox ko dimbali ko loole da ngay gis ci lu lislaam bëgg la lool wa qawlihi subhanahu wa aati zal naam wa aata al maala ala xubbihi suñu borom mu ne jullit dëgg mooy ñuy joxe alal gannaaw buñ bëggee alal ja zawil qurba ñu jëkk ca jege ñaale ya donte ne borom baa ngi wax miskin yaag doomi yoon yaag yu deme noonu kon lii lépp day jàngale rek ci ne suñu borom bëgg na lool ab jaam di jël ca lam ko wërsëgal di ko delloo ci moroomi jaamam te da ngay gis ne bokk na ci gën ci nit ñi ci yàlla di jaarale fajug aajo ci loxoom ci yàlla di jaarale fajug aajo jaam yi ci loxoom loolu ñu bàyyi ci xel bu baax wa qawli rasul sallallahu alayhi wa sallam bu ñu delloo ci wax yonente ba lu ñu fay fekk mu ne tahaadu taxaabu ay waay dee leen mayente ci seen diggante mayente day jur cofeel doomu aadama bi la nga am nga yëkkate may ko ca mën nam sax soxlawu ko waaye yëg-yëg bi nga am rek ba li nga am néew ko bari nga yëkkate may ko rek loolu day jur cofeel seen diggante moo tax yonent bi ne day leen mayente seen biir ndax loolu day jur cofeel ci seen biir wa tasaafahu yazhabul xillu ankum dee leen it di joxante loxo di nuyoonte da leen nuyoonte ndax loolu dafay dindi ak noonoo ci seen diggante doomu aadama bi bu dee am nga lu ngeen séq ci ak noonoo nga fekk ko ci mbooloo jox ko loxo mu jox la loxo en général day dindi loolu kon loolu la yonent bi alayhi salaam wax noo nit la lislaam bañe lool waa ji maye ba pare dem di ko nanguwaat wa qawlihi sallallahu alayhi wa sallam al aidu fi hibbatihi kal aidi fi qay'ihi mu nekk jël alalam maye ko ba pare wëlbatu ko dem nangu ko mi ngi mel ni ki waccu woon ba pare dem di lekkaat waccu bi wa qawli aisha radiyallahu anha kaana nabiyu sallallahu alayhi wa sallam yaqbalu alhadiya wa yusibu alayha yonent bi alayhi salaam nee na yonent bi dañ ko daan jox ay hadiya ay may liñ ko daan may yépp daana ko nangu waaye en général lu ko waay masa may yonent bi fexe na ba may la lu gën loolu daana nangu ay may daan ca teg ay di la may lu gën loolu gis ngeen loolu it muy wane ne hëdiya même boo doon milliardaire nga ki jël ci alalam may la da nga ko war a nangu même bu doon ab sotti la wala parfum la wala lu mu mën a doon ci may ki ñëw rek jël may la da nga ko war a nangu lu dul façon mayin yiñ nar a jàng ci kanam tuuti mu ne it wa qawlihi yonent bi daan wax ba tey man sarrahu an yubsata lahu fi rizqi koo xam ne nii day dana kontaan lool dana bég ci yàlla yaatal wërsëgam wa an yunsaa lahu fi asari ñu daal di koy guddalal ca la nga xam ne mooy jeexitalam fal yasil rahima nay jokk ay mbokkam ca yonent bi islam day wax fii rek ne soo bëggee sa wërsëg yaatu soo bëggee sa gudd fan nga gudd fan bokk na ca lala yàlla di wërsëgal dee ca jokk say mbokk loolu day tax sa wërsëg di gën a yaatu ndax suñu borom nee na lu ngeen dépensé man danaa ko wutal mi ngi noonu te itamit da ngay gis ni bokk na liy sabab ba doomu aadama am gudd fan mooy lu mel ni génne bari génne ay sarax comme ni ngay demee di feebar di faju génn sarax it day guddal fan comme yenn bakkaar yi ni mën a gàttale fan mu ne nag yow mi yor sab téere shurutuha lan mooy charti may niñ ko yàgg waxe soo déggee charte mooy loo xam ne su manqué mbir ma day yàqu shurutul hibbahiya charte may mooy yi di ñëw ba ca jëkk mooy al ijab mooy waral ga borom alal jay jël di ko waral ca alal ja ne may na ko wa huwa ijabatul waahib man sa'alahu shay'a ca mooy mu nangul aji may la nga xam ne dañ ko ko ñaan wa itauhu wa iyahu mu daal di koy jox kooki bi rada nafs ci bànneexu bakkanam mi ngi noonu képp koo xam ne dafa am ku ko ñaan dara mu yëkkati jox ko ko loolu la ñuy tuddee waral na may ga ñaareel ba mooy alqabul kañ ka may nangu may googee wa huwa an yaqbala almawhubu lahu alhibba ca mooy kañ may na nangu na may gi bi an yaqul qabiltu ma wahabtani mi ngi mel ni rek mu ne nangu naa li ma may aw yatanaawalaha bi yadi wala mu daal di koy jël ci loxoom li yaxuzaha ngir mu jàpp ko is law anna musliman ata atiya ndax kat bu doon jullit dafa maye ak may mi ngi noonu joxe na ak joxe aw wahaba hibba wala mu maye ak may li ahadin ñeel kenn walam yaqbidha ca kam ka may jëlu ko xatta maatal waahib ba ka ka maye woon dee fa innaha tusbihu min xuquqi alwarasa loolu day xëy nekk ca aqi ñay doon la xaqan lil mawhubu lahu du nekk àqu kañ ka mayoon fiiha ca alal jooje li fiqdaani chartiha ngiree la nga xam ne mooy manqué charte ca wàllu may ga wa huwa alqabul ca mooy nangu gam ko nangu is law qabilaha la qabidaha bi ay nawin min anwaai alqabd ndax bu doon da koy nangu dana ko nangu ci benn façon nangu nii kon day wax fii rek ne mbokk ak maye bala ko lislaam wéyal day am ñaari charte benn bi mooy li ñuy tudde ijab mooy waa ji maye maye kañ mayit nangu bokk na ci li gën ci lu ñuy maye mooy nit ki maye ko nga xam ne moom la féetewoo ci awallu sëy sa doom la sa kuñ la jox nga woo nit ne ko may naa la diw may naa la diw rek wala may naa la nangam bu mu mën a doon taxul islam ne may gi dagg na fokk waa ji d'accord bu ne d'accord ca la ñuy doog a wax na kon may ga moom jeex na féete na ca waa ji mais ki woowoon nit na ko may naa la sama doom mu bañ may googu islam du ko cons du ko du ko du ko nangu may naa la matériel tel mu ne déedéet islam du nangu loolu waaye bu amee al ijab muy maye wal qabul ak nangu loolu dañuy gis ne may gi day doon may gi dagg du may gu dog mu waxit ni tey jii nit ki bu doon dafa maye benn mbir kam ka may jël siwu ko ba mu dee aji ndono ya bu leen neexee jël loolu boole ko seen ndono lu waral loolu mooy may ga matul ak may balaa mat kañ ko may day ñëw da koy da koy ñëw jël su dee ne lañ ko mayoon jëlu ko loolu dañuy jàpp ne may ga manqué na ba tey mi ngi noonu noonu la ko noonu la ko jàngale kon bu dee ne yow mi nga xam ne da nga yor sa téere ba tey mu ni naam mooy mooy charte yi léegi ahkamuha yan atte moo mën a nekk ci may googu ahkamul hibahiya in kanat al atiya li ahad al awlad su dee ba ngay maye kenn ci say doom nga maye استحب إعطاء باقي الأولاد مثلها sopp nañu nga may sa desitu doom yépp lu mel noonu li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam ittaqu llaha wa'dilu fi awlaadikum ragal leen yàlla ca maandu seen diggante seeni doom waaw kon day wax fii rek ci ne bàyyi heure boo xamee ni dafay jël di may doom may goo xam ne mayu kontante rek la du mayuk sabab dañ koy sant mu may doom yëpp yemale leen loolu nag bokkul ak mayuk sabab mayuk sabab mooy lan masalan xale baa ngi ni war a génn jàngi la nga finance ci moom mu wóor na le bu doon keneen nit nga def ko kii daa jóg bëgg a takki soxna nga yëkkati xaalis jàppale ko ci can ila axiri bu dee may ga mayu sabab la loolee duñ ne li nga may kii foog nga may ko kële amma bu dee sa coobare rek la nga yor sa alal woo kenn rek na ko may naa la oto bi wala may naa la tool bi wala may naa la nangam te amul benn sabab islam danaan déedéet mayal ñëpp ki nga xam ne mooy baayu Nu'man ibn Bashir dafa ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko sama jardin day bi ma am may naa ko sama doom Nu'man yonent bi ne ko waaw ah sa yeneen doom yi ndax may nga leen jardin mu ne déedéet yonent bi ne ko demal man du ma séede ak jeng te loolu it ñu war ci bàyyi xel bu baax mooy way jur heure booy may say doom may coobare kese war nga doom ñu nekk ku ne nga may ko bala ñoo yëg ak jeng boo xam ne day am ci seen diggante borom xam-xam yi nag am nañu ixtilaaf tey boo doon mayee rek ndax da ngay yemale góor ñi ak jigéen ñi wala da ngay maye góor ñi duubalu la ngay may jigéen ñi ñu ngi noon duubalu la ngay may jigéen ñi am na bokk na li ci gën a jeng mooy li gën a dëpp ak sharia mooy ak maye rek la booy may góor ñi may leen ñaar jigéen ñi may ko genn wàll comme ni yàlla séddale la nga xamee ne nii moom mooy miraas ba allahuma am na yeneen bana xam-xam yoo xam ne dañ ne maadaama may rek la da nga leen di yemele wallahu aalam ñaareelu acte bi ci may mooy yaxramu rujuu fi lhibba li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam al aaidu fi hibbatihi kal aaidu fi qayi loolu jàngoon nañ ko mooy araamal nañ doomu aadama bi nga woo nit ki may ko bis ba nga ko mayee loolu ak moomeelam la su ko neexee jaay ko su ko neexee sarx ko moo ko moom nga wëlbatu ko nanguwaat ko ci moom kon léegi yaa ngi tooñ yaa ngi dégg loolu yaa ngi tooñ looloo tax mu ne loolu day xaram ndax yaa ngi tooñ yaa ngi mel ne kuy wàcc di ko lekkaat mu ne illa an takuna al hibbatu min walidi waladihi xanaa lu dul baay bu mayoon doomam dara fa inna lahu rujua fiha loolu mu ko may heure bu ko neexee mu nanguwaat ko mi ngi noonu izil waladu wa maaluhu li walidihi ndax doom ak alalam yépp waajuram moo ko moom wa li qawlihi rasulullah sallallahu alayhi wasallam la yaxillu li rajulin an yu'tiya al-atiya du dagan ci benn góor mu maye benn maye suma yarji'a fiha gannaaw bu mu cay dellu ila ila alwalid fi ma yu'ti wala li waladi lu dul baay te la nga xam ne da koo may doomam na am kon nit ki ki nga xis ba may lanka may moo ko moom léegi bu dee nag sa doom nga may mu ne doom moom boo ko mayee soo demee ba gis maslaha ci ne nangu ko ci moom moo gën islam dul tere nga nangu ko ci moom donte ne li mu wax neen doom ak alalam seen baay ñoo ko moom naam benn waaye dafa ñëw ci moom ci yonent bi alayhi salaam ne ko sama baay daal sama alal ji day nekk sama alal ji def lii def lii yonent bi ne ko yaag sa alal yépp sa baay moo leen moom loolu nag la ca borom xam-xam yi wax nekkul baay moo moom alali doom ni moome alali boppam waaye heure boo xamee ne baay am na soxla boo xam ne nii ñépp xam nañ ne soxla na alali doomam nekk fii te bu jëlee alal ji du lor doom ji am na droit jël ci alal ji amma baay amul droit di jël alali doomam di ko foye ci lu dul ay soxla lépp loo xam ne bu ko defee mu lor doom ji amu ci droit te bu boobaa doom ji am na droit bañ mais daal bu dee ni la muy kii da koo aajowoo ci war koo dunde war koo fajoo war caa fay ay luwaas war caa fay ay nangam te bu ko jëlee ci alalu doom ji du lor doom ji mook alalam ñoo yem foofu waaye du rek ne dafa dañ koo boyal à cent pour cent ba bàyyi lu ko neex def ci alalu doomam mi ngi noonu kon loolu lay wax foofu ci ne bàyyi moom am na droit dellu ci lam jëloon lam mayoon doomam ñetteelu atte bi tukrahu xibbatu sawaab sib nañ lool may goo xam ne kay maye lam ci jublu mooy kami may jox ko lu ëpp lam ko may mooy mayu ndollant wa hiya an yuhdiya muslim li axar hadiya julit dem yahdiye muslim may la nga xam ne nii mooy ab julit moroomu julitam benn may li yukaafi'ahu anha ngiree mu daal di koy matalal may googe bi aksari minha ci lu ëpp loolu li qawlihi taala ndax suñu borom nee na wa ma aataytum min riba lépp lu ngeen di jox ci ak fuluk alal fi amwaali naas ngir bëgg mu ci alali nit ñi fala yarbu inda allah du nekk du fulu ca ca yàlla wa ma aataytum min zakatin waaye du ngeen joxe ci azaka turiduna wajha allah di ca sakku kanamug yàlla ga fa ulaika humul mudifun ñoom day ñoom ñooy ña nga xam ne la ñuy fulal mi ngi noonu mbokk kon day wax façon maye yi nga xam ne soo ñëwee ci Sénégal bokk nañ ci ñi gën a ñaaw niñ koy defee ndax bu doon dafa yem ci ndawtal rek mooy ki ñëw am xew nga ndawtal ko yaa ngi bëgg ci bis boo amee xew mu ndawtal la lu ëpp la nga ko ndawtaloon ba jigéen ñi dañ koy xuloo sax soo ma tegalu lit delloo ma la ma la joxoon gis ngeen dañu am seeni carnet di bind lu leen ndawtal ñu bind ko waaye mu am benn aada nag bu gën a bon loolu mooy li ñuy tuddee ndeyeli da xam ngeen ndeyeli mooy kii day xewul day am doomam doom bi am jëkkër mu ñëw ci fàttaam na koy wala ko ndeyeli su ko joxee dix mille francs dix mille francs yooyu fàttaam cent mille la war a indi cent mille la war a indi au minimum bokkul ak nag loo xam ne nii da ko cay teg loolee mbokk da ngay gis jigéen ñu bari fitnaal na leen ma nettali leen ci benn anecdote benn waaye moom ma ko nettali nee na soxnaam dafa am ku ko ndeyale benn doomu ndeyam da koo ndeyale nee na joxoon na ko dix mille ngéntali dafa war a yóbbu cent mille ak lam tey teg soxna si liggéeyul amul dara nee na bi ñëwee ba ndaw si nekk ci juróom-ñeenteelu weer daanaka ne la watul guddi man xaw ma nu may def kii bu amee doom nu may def waa ji mu ne ma dama dem négocier sama service anticiper sama congé ñu fay ma sama alalu congé pour bu xale bi amee doom ma jox ko ko ngiree mu dem gàcce bañ koo dal yàlla mu dara teewul benn guddi ñu téléphone ñu rek ne ah xale bi da am na doom waaye doom ju daa dellu soxna si daal di jokk sa alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah mbaa ko xoolal musiba bi xoolal musiba bi ah xoolal musiba bi loolu mbokk da ngay gis kon musiba la boo xamee ne nii wax dëgg yàlla xaw ma lu ko indi ci suñu réew waaye ku ko fi mën a bañ ay da nga ko war a bañ loolu tax boo yore sab téere yow mu ne mu ne su boobaa wal mahdiu bil xiyaar wal muhda ilayhi ka nga xam ne dañ koo may bil xiyaar mi ngi ci tànn su ko wóoree ne waa ji lim koy may pour mu dollil ko su boobaa dañ koy tànnloo fii qabuliha wa rafdiha su ko neexee nangu ko su ko neexee delloo ko wa ida qabilaha wajaba alayhi mukaafatul mahdi mahdi bima yusaawiha aw aksar su demee nag ba nangu ko te xam ne moom ba mu ko ko jox lii la ci jublu woon su boobaa day war mu delloo ko la mu ko joxe woon wala lu ëpp li qawli aisha radiallahu anha kaana nabiyu sallallahu alayhi wa sallam yaqbalu hadiya wa yusibu alayha yeneen bi daana nangu hadiya daan teg ci hadiya boobee wa li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam man sanaa ilaykum maarufa képp koo xam ne daa def ci yéen jëm ak njëg fa kaafi'uuhu na ngeen ko delloo lu tol ne lam leen defal ci njëg mi ngi noonu wa qawlihi sallallahu alayhi wa sallam man saraa ilay man suni'a ilayhi ma'ruf koo xam ne dañoo def jëm ci moom njëkk fa qaala li faa'ilihi mu wax ko ko defal njëkk jazakallahu xayra yal na yàlla fay la yiw faqad ablaga fi sana ku mel noon day matal na ca tagg ak ñaan gam ñaanal ko ko defal loole waa day wax rek ne kon ki nga xam ne daa ñëw di la may si gis ñooñu di wër ci xew yi di ñaan léeg-léeg bu ñëwee ci borom xew bi rek dañuy yëkkati masalan lu mel ne 5000 jox ko moom wóoru na ko ne bu la joxee 5000 10000 nga koy delloo bu la joxee 10000 20000 nga koy delloo yi nga noonu léeg-léeg it mu jóge ca bàjjen ya su ko defee lu bàjjen yi joxe dañ koy double jox leen mu ne nag kiñ jox kiñ jox may gu mel noonu islam danaan ko yaay seet bu la neexee nangu ko bu la neexee bañ te it wàllu ndey la googee lu bari ci jigéen ñi am ful la soo leen joxee ndey de dañ naan la ah téyal rek ñun suñu doom la bu xew baa lu ñu mën def yaa ngi dégg wala fi kenn du leen imposé mu ne waaye nag bu dee ne yow da nga koo jël te xam nga ne kii bi mu lay jox daa bëgg nga delloo ko su boobaa lum bon bon lam la joxoon moom da nga ko koy delloo soo ca mënee teg nag nga teg ca ndax yonent bi alayhi salaam nit ñi daan nañ ko may mu leen cay mu leen cay tegal te xam ngeen yonent bi alayhi salaatu wasalaam lim gënoon a bañ ko ko ko taxé mooy nay ñu ngi noonu daana joxe ay zakat ay nit ñëw taxaw mu jox leen gars yi na ko ñi ngay jox yeeye wuñ ko mu ne waaw da ngaa bëgg ñu dem ne di ma taxi ne damaa nay yaa ngi dégg loolee mi ngi noonu su ko defee dara wax mi ngi ne daal ku bëgg a jël ku ko yeewul boo ko jëlee booy lekk xam nga àqu jàmbur ngay lekk gis ngeen su ko defee kon loolu la yonent bi sam daan def mu ne it ku leen defal njëkk même bu ci jubluwul nga delloo ko waaye it boo mënee defal ko njëkk te loolu it day tax comme nañu ubbi woon dars bi rek mayente tahaadu day tax ngeen bëggante nit ki loo mën ci teraanga la sa doole toll nga def loolu mi ngi noonu ndax hadiya asgor dëgg dëgg dëgg du ko xeeb asgor du ko xeeb gaa yi nettali ci bani israil ñu ne yeneen ci yàlla suleymaan bi mu rombee ci xorondom ba dañoo indi benn siddéem xoxu si benn siddéem da xam ngeen siddéem xorondom yi yenn ko ñëw ci Souleymane ne ko kii ñoo la ko defal hadiya waaw bul xool hadiya bi nag waaw xooleel fa mu jógee Souleymane ne leen fonk naa ko lool lool lool yaa ngi dégg kon hadiya du tuuti mu ne nag képp ku leen defal hadiya yéen it fay leen dafa leen ko hadiya te amoon na benn waxkat bu nekkoon bu ko ma sax di tudd turam yàlla na yàlla jégal ko ala kulli xaal da doon animé nit ñi ree mu ne yàkkale jigéen ñi yàkkalente bi ci njaga njaay yu duggee la ci jéegi caamin yi génn yaa ngi dégg ndax xam ngeen yàkkalente kan ngeen gëj a dégg loolu mbokk jullit très rarement xëy na lii am iit ak yooyu waaye bu jëkk waa kër caam bu ñu soppee seen cin tibb bool jox ñële ñee soppi tibb bool jox ñële yonent bi alayhi salaam ne day leen yàkkalente mu ne jigéen bul xeebal sa moom sa moromu jigéen sax catu firsana chat mooy catu yee yee yeelu bëy ab yeelu bëy wala yeelu xar bu ndaw sax bu ko xeebal tibbal ko sa morom mu ne nag yàkkalente boobu da ngay gis ne bi ci njaganjaay yu duggee la ci jéeg ji génn kon day leen defalante njëkk mu ne nag nit ki bu la defalee njëkk ci xamoo loo koy fayee boo ko ne jazakallahu xayran matal nga la nga xam ne mooy fay ga ndax lu mooy lan mooy li nga def yal na yàlla fay la lu ko gën gis ngeen ki la tabaxal kër jox la oto jox la lépp nga ne ko jazakallahu xayran yal na yàlla fay la lu gën li nga ma defal nee na ko mel noonu matal nga te la nga xam ne moom nga ko defal ci ak cant mi ngi noonu ala kulli xaal mbokk loolu mooy dars bi yeggu aju ci wàllu cant gi la nga xamee ne nii moom moo ci moom moo ci tege ndax daanaka nekkul loo xam ne nii lu luy luy am différence bu bëri la mooy li ñuy tuddee al umra gis ngeen ma tëpp la nga xam ne mooy ni ñuy bindee cant gi ni ñuy bindee may gi comme niñ ko tëbe woon ci yeneen dars yi ko defee yow nga xool li ñuy tuddee al umra ndax sorewul ak may mu ne li nga xam ne mooy al al umra moom mooy taarifuha hiya an yaqula al muslim li axiihi mooy julit ñëw ci mbokkum julitam ne ko amartuka daari aw bustaani ne ko day jox naa la ci yëg yaa ngi dund sama kër gi nga dëkke ko wala sama tool bi nga koy bay aw wahabtuka sukna daari wala nga ne ko may naa la dëkkuwaayu sama kër aw xallata bustaani la nga xam ne nii mooy meññe ci sama tool muddata umrika fiyeeg yaa ngi dund aw tuula xayaatika wala fiyeeg jiirug sa dund rek ci gàttal kon loolu moom mooy mooy atte bi mooy nit ki da nga koy may may goo xam ne mi ngi yem fiyeeg mi ngi dund kër gaa ngi nii fiyeeg yaa ngi dund moom dëkkee ko tool baa ngi nii fiyeeg yaa ngi dund jëlal di ko bay ak leneen lu ñu mën a jëfandikoo loolee islam mi ngi noonu nangu na ko mu ne nag ana ban atte moo ca am xukmuha al umra jaiza lii di jël nit ki may ko may goo xam ne ci dundam lay aju loolu day lu ma nekk la li qawli jabir radiyallahu anhu jabir daana wax ni إنما العمرة التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم لدي ما يقدندل غيرين تبدان ويل أن يقول هي لك ولأقبك mooy ka nga doon jox kër ga wala tool ba nga ne ko ñeel na la ñeel say ndono sa gannaaw fa amma iza qaal hiya laka ma ishta waaye bu ne ko ñeel na la feeg yaa ngi dund fa innaha tarji'u ila saahibiha su boobaa day dellu ca ka nga xam ne moo ko moomoon ca kon day wax fii rek ñaari façon dundal umra moo am benn bi moom mooy may la rek këre ngi nii nga ne ko kër gi day jox naa la ko jël ko nga dëkke bu dee loolu rek la ko wax may naa la ko jël jox naa la ko nga dëkke su boobaa da ngay gis ne moog luñ ko may moo yem bu dee ay doomam dañ koy doon amma bu dee da koo tënk ci ne ko fii yaa ngi dund su boobaa kan ka mayoon bu dee ka nga xam ne moo moomoon kër ga day dellu ci moom wala mu dellu ci ay ña koy doon léegi nag mu ne yan atte moo nekk ci loolu أحكام العمرة هي إن أطلق لفظها بأن قيل بدين واجد فبويل رك وخجة نكو أعمرتك هذه الدار نكو كرجي دي جخنا لكو غدكي fa hiya liman umira wa li aqibihi min baadi kon kër googu day ñeel kañ ko dëkkaloo ak njabootam gannaawam li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam al umra liman wuhibat lah la nga xam ne mooy kër ga ñuy joxe ak dëkke dana ñeel kañ ko may wa kaza in qiyadat bi in qiyadat bu dee dañ koo tënk bi lafz ci wax boo xam ne dana ko hiya laka wa li zurriyatika min baadik kër gi de jox naa la ko yaag sa njaboot sa gannaaw fa hiya lahu wa li aqibihi min baadi kon dana ko ñeel ñeel njabootam gannaawam wala taudu ila al muammir bi xaal du dellu ca ka nga xam ne moo ko joxe woon ci benn xaal maadaama loolu la ko wax li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam ayuma rajulun umira umra lahu wa li aqibihi fa innaha lilazi yu'taha la tarji'u ila allazi a'taha képp koo xam ne dañ ko dunduloo ci kër moom njabootam gannaawam dana ko ñeel du dellu ca ka ka joxoon li annahu ata ata an waqaat fihi al mawaris ndax dafa joxe may goo xam ne ak ndono day am ca loole loolu mooy lu jëkk li ñaareelu atte bi mooy in quyyidat al umra bil lafz su dee waa ji ba nga koy dëkkaloo ci sa kër da nga koo tënk ci ne hiya laka ma xayita kër gi day dëkke ko fii yaa ngi dund ñeel na la fii yaa ngi dund wa iza mitta rajaat ilayya aw ila zurriyati boo xamee ni nii nag faatu nga dana dellu ci man wala mu dellu sama njaboot min baadi fa innaha tarji'u ba'da mawti al-mu'ammar day dellu gannaaw fa faatu kañ ko dëkkaloo woon mu'ammarun lahu ila mu'ammir day dellu ci ka nga xam ne moo ko ko dëkkaloo woon لقول جابر رضي الله عنه إنما الأمر التي أجازها الرسول صلى الله عليه وسلم ak dëkkuwaay ba yonent bi wéyaloon ñu war koo don an yaqula hiya laka wa li aqibika wa li aqibika mooy ñeel na la ñeel njaboot gi sa gannaaw fa amma ida qaala waaye bu ne koo rek hiya laka ma ishta ñeel na la fiig yaa ngi dund fa innaha tarjiu ila saahibiha su boobaa day dellu ñeel ca koko moomoon loolu mi ngi noonu ca loolu it ak façon maye la boo xam ne sorewul ak lu mel ne waqf biñ doon wax biñ jàngoon dimanche passé te mooy nit ki nga jox ko ab tool ne ko tool bi di fiig yaa ngi dund mën nga koo bay kër gi di fiig yaa ngi dund mën nga koo dëkke su boobaa moom fiig mi ngi dund am na àq ci loolu bis boo xam ne dee na kaka ka mayoon mi ngi dund ko moom mu jëlaat ko bu dee kaka ka may moo ko jëkka dee mu dellu ci ay ndonoom amma nag bu dee ne da ko koo boyalal rek su booba kaka dëkke moo koy donn bu ñëwee suñu bind bu mujj mooy li ñuy tuddee a ruqba taarifuha bu ñuy xamal loolu mooy lan a ruqba hiya an yaqula al muslim li axihi mooy julit wax mbokk julitam in mittu qablaka fa daari lak xamal ne day bis bu mu la jëkkee dee sama kër gi yaa ko moom aw bustaani masalan wala bis bu mu la jëkkee dee sama tool bi yaa ko moom wa in mitta qabli fa daa fa fa daaru ko li bis boo dee it yow sa kër maa ko moom aw yaqul wala mu wax haza laka muddata umrika lii ñeel na la feeg yaa ngi dund fa in mittu xa fa in mitta qabli boo dee sama avant man nag rajaa ilayya mu dellu si ci man waaye wa in mittu bu dee nag man maa jëkka dee qablaka fa huwa laka dalay ñeel fa takuna li axirihima mawta mu nekk ñeel ka jëkka mujj a dee ci ñoom ala kulli xaal mbokk loolu lañ ko waxee ruqba mooy loolu mooy nit ki nga ñëw kër la wala tool la nga ne ko ah lii day xamal ni su boo xamee ni nii yow yaa ma yow yow man jëkk naa laa dee su boobaa lii moom jël ko may naa la ko wala dëkkeel lii bis boo ma jëkkee dee it man danaa ko jëlaat ba nga xamee ne alal de day doon alal joo xam ne day dellu ca ga mujj a dee ci ñoom loolu la ñuy tuddee ak ruqba te li tax mooy xaarante mooy al raqib mooy ki xaar mooy ku nekk yaa ngi xaar sa dégg morom ndax ku mujj a dee rek yow yaay ka nga xam ne yaa ko moom hukmuha dan mooy atte loolu ci lislaam al ruqba makruha loolu lu l'islam cible li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam la tarqubu loolu bu leen ko defalante di xaarante ak de fa man ulqiba shay'un fa huwa sabilul miras képp koo xam ne nii dafa jox nit ki ne ko lii jël ko bis boo dee mu dellu si ci man loolee du tee bu dee dañ koy donn ca moom ولأن الارتقاب وهو انتظار الموت موت المرقب قد يجر إلى أن يتمنى المرقب له موت أخيه المرقب دخكت كذا خميني دانيو جل أكمي جوخو نتي نكو نك لي بس وما دي يا موم كمل نوني دغي غيس توجور ميغي ياكامتي شيطان من جخ جخال ci xolam mu yàkkamti kooku dee ba loolu mu doon koo xam ne ku ko moom la bal qad yasa fi ihlaakihi bal loolu mën naa dem sax ba yóbbu ko muy dox ngir rey ko te loolu daloon na yaay Xafsa benn ci jaam yu jigéen yi mu amoon mu ne ko bis bu ma dee danaa la goreel su ma dee rek da nga gore ndaw si dem daa di indi njabar jabar yaay Aïcha pour rey yaay Hafsa pour rey mi ngi noonu koo koy gis nañ ne ba mbir ma feeñee dañ koo rey loolu kon day wane ne islam bëggut loolu nit ki nga naan ko lii day jël ko bi su ma dee yaa ko moom loolee seytaane dafa mën a indi njaxas lool ba indi fitna comme niñ ko nettali woon dimanche passé loolu moo waraloon suratul baqara ñu tudde ko baqara mi ngi noonu waliyaasu billah mu ne fa lihaza kariha jumhurul ulama ar-ruqba looloo tax li ëpp ci borom xam-xam yi dañoo sit ne loolu jullit war a koo def jullit warul def di jox nit ki naan ko su ma dee yaa ko moom moom kay da nga ko koy may wala boog wax da nga koy wax yow jëlal dëkke bis boo dee ma jëlaat ko waaye bu ma dee yaa ko moom loolee mën na indi fitna ci waa ji ñebe toujours nga jëkk koo dee gis ngeen ñetteelu atte bi ci nekk mooy in irti in irtakaba al muslim al makruh wa urqiba ruquba loolu bu dee ne dañ koo sib waaye nag julit def na ko fa in hadihi ruqba tadri ala ahkami al umra su boobaa atte ya ñu waxoon ci liñ jàngoon ci kaw umra ba loolu lañ cee atte فما أطلق منها فهو لمن أرقب ولأقبه من بعده كيف كو خميني ني دنجكو بويل المبرم كرجي كت جلكو بسم الله جكي دي ياكو موم سبابا بو وخي لولو بسبو دي موم موكو موم موم جبوتم أما وما قيد فهو بحسب القيد سدين يو دنجنكو سدين دال دمال جكي دي kër gi yow dëkk ko ba baa ngay dee su boobaa dañ koy tënk ca loolu fa in ishtarata rujuaha rujiat su chartoo day dellu ci moom dañ koy nangu wa in lam yushtarat fala tarji bu ko chartoo woon it kenn du ko kenn du ko delloo waaye dal ci gàttal mooy julit wurte def loolu julit wurte di maye may goo xam ne da koy tënk ci ne kam ko may mooy gis bu ma dee yaa ko moom loolee boo ko defee dana wéy waaye nag bëgguñu jullit di ko def nga xam ngeen ati lislaam da ci am yoo xam ne boo ko defee day wéy waaye bëgguñu lu koy def mi ngi mel ne an nazar li di nisar yàlla sama feebar bi boo ma ko wéralee danaa sarxe nangam danaa nangam islam bëggut loolu islam li mu bëgg mooy ñaanal yàlla directement rek génne sarax directement rek waaye yàlla boo defee lii ma def lii loolu islam bëggut loolu ah ah amma naam naam waaw su ko defee kon jàpp nañ ne mbokk jullit loolu moom moo nekkoon bind bi nga xam ne moom la ñuy jël tey dañuy bàyyi bilal noddal ñu insha allah li ci des ñu jagleel ko ay laaj su dee am na wallahu subhanahu wa taala aalam waaw day wax rek ne kii ñëw di la may te naan la dag ma ciy tegal dara ndax loolu nekkul riba ci lay may du la ñëw naan la dag ma ciy tegal dara mais yow yaay xam ne may gii mu la may dala may pour nga tegal ko ci dara loolu nag la borom bi subhanahu wa taala moom aaya bi mu doon tegtaloo mooy fi suñu borom di wax naan lépp lu ngeen joxe ngir bëgg a bari la ci alal nit ñi di bari ci yàlla mais bu dee da ngaa bëgg a bari alal rek amoo foo ko jaare lu dul di may nit ñi ngir bu ñu lay delloo delloo lu ëpp loolu mu ne loolu yàlla du ko barkeel amaa li nga jël mayee ko joxe ko ci yàlla tax loolu la yàllay barkeel waaye nag maadaama ak may la loolee kenn du ko tuddi riba riba mooy nit ki ngeen di leblente nga lebal ko buy lay ngi am dat bu ñuy wax ngeen fay booy fay fay dara waaye bu dee jimmi daa yëkkati rek may la donte ne yow yi nga ne may gi moom kat bëgg na booy may nga dellu ko it loolee kenn du ko tudde jëflante ci wàllu riba ñaareel bi mooy li ñuy tuddee pharmacie yi ndax heure juma war nañoo nekk di liggéey déedéet mbokk pharmacie heure juma waruñoo nekk di liggéey juma mbokk 30 minutes la booy xool 30 minutes presque la mooy fi imam bi ñëwee ak fa nga xamee ni nii fa la fa la fa la julli gi jeexe pharmacie yaa ngi nii yëpp 11 heures dañuy tëj ñu ngi noonu 11 heures dañuy tëj du lay pharmacie de garde donc que bu dee ne 30 minutes yooyu par ajjuma loolee jàpp nañ ne jullit ñi bu ñu organiser mën nañ fexe ba lu ñuy jënd en ñu jënd ko en urgence ba du génn la nga xam ne mooy 30 minutes yooyee waaye bépp jullit boo xam ne da ngaa yor sa pharmacie bi su àjjuma jot boo déggee nodd nañ imam ñëw na da ngaa war a tëj mi ngi noonee wallahu subhanahu wa taala alam waaw ba moom kay fa bu ma waxee pharmacie waxuma leneen xanaa lu dul ay cas exceptionnel médecin yi nekk salle d'opération ak yu demee noonu nga xam ne boo bàyyee liggéey ba catastrophe am su boobaa loolu taxul ñuy wax waaw waaw waaw waaw waaw naam naam naam naam naam bismillah bismillah waaw naam ala kulli xaal yar doom moom même buy doomu jàmbur bu ñu farog bu ñu def yar doom moom islam terewu ko islam moom terewul kenn kuy yar doomu kenn su dee ne it kookee nga xam ne nii moom bu doon tenee masalan doom bu góor la boo xamee ne nii jëkkëram moo nangu seede nañ ni kii doomam la da ngay gis ne soxnaam soosee nga xamee ne nii soxna boppam la loolee dafay dugg ci ay mahramam ndax doomi soxna boobee duñ mën a sëy ak la nga xam ne ni mooy doomu kookee nga xam ne ni jëkkër bi da koo am ci du yoon amma bu dee ne doom bu jigéen la ku mel noonu amul benn muskila xanaa fa muskila bi da amee rek mooy ngay xalaat doom bu góor la mais bu dee doom bu góor la it te moom moo nangu ne moo ko jur loolee dara nekkul ñoom ñaar ñu nekk di wéet ak yu dema noonu wallahu subhanahu wa taala alam mën na ko ko mën na koo yaral naam naam naam bismillah naam naam ah kay dana dagan julit ñaanal ahlul kitab dana dagan sax nga fat ko loole mi ngi noonu loolu ñu bàyyi ci xel bu baax allahuma lu dul am na ay politique yoo xam ne am nañu ko doon def fi ca kafes bi semaine bi passé rek am na ko ma koy laaj naan ma ay chrétiens yoo xam ne dañuy faj mais bu ñuy faj duñ joxe garab waaye nag yàlla la ñuy ñaan li ñuy ubbee daal mooy au nom de Christ nangam nangam mais da ngay gis ni ñuy faj sur place lu ci bëri ay politique la dañuy am seeni malade yoo xam ñoom ñëpp a ànd nga gis kuy dar ngoo ko diree ko fekk ñoom ñëpp a ànd su ñëwee ñu ñëw daal di ne au nom du Christ nangam nangam sa batajaay waa ji na ci kaw sànni ay béki yam fekk dara dalu ko ñoom ñëpp ñoo ànd ala kulli xaal képp koo xame ne nii day mocc di woo keñeen ku dul yàlla chrétien laam julit laam animiste lool lu mu mën a doon julit amoo droit dem ci moom amma nag bu dee lam lay jox ay reen la ak i comprimé loolu de moom julit ak yéefar mën ngaa dem faju ci moom amma yow julit képp koo xam ne dafa feebar am nga droit faj ko ndax yow doo fajalu dul loo xam ne ni lu dagan la wallahu subhanahu wa taala alam waaw yaakaar naa kon mbokk man waaw ñu mujj ci waaw waaw bismillah waaw ñaati waaw bismillah waaw waaw boo dee waaw waaw waaw da koy nuyu gotobul ko waaw waaw waaw mu delluwaat nekk chrétien wala mu demal boppam ci lan mu mu delluwaat nekk chrétien am na njaboot ci diine ji après mu dem nekk chrétien mu demaat nekk chrétien léegi yow looy laaj léegi yow njaboot gi ngay laaj wala lan njaboot gi ngay laaj wala wala moom ci boppam ala kulli xaal ki demaat nekk chrétien moom dafa murtat bu doon l'islam dafee nekk dañ koy woo fexe tuubloo ko tuubloo ko su bañee dañ koy rey waaye maadaama l'islam nekk fi li ñu man rek mooy naxantewaat ak moom naxantewaat ak moom pour dellu si ko waat ci diine ci yaa ngi dégg loolee da ngay gis ne mën na am doomu aadama pression bu ñu def ci moom ay mbokkam chrétien ba mu dellu ba mu génn waaye nag jullit ñoo war a def effort delloo si ko amma bu doon loi islam am na fi moom comme neex dund sa kéeféer yow na kenn newu ci mais bis boo demee ba dugg ci lislaam nag wëlbati ko génn ci daañ la woo tuubloo la suñ la tuubloo nga bañ dañ lay rey ñu ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam waaw ñoom ñaar dañuy yëkkatoo la woon seen loxo kon ñu mujjee ci mbokk bi rek waaw waaw nit ki nga xam ne danga koo mayoon bu dem ba yàgg nga gis ko may ay naan sàngal ak yu demee noonu ala kulli xaal kooku da nga koy def rek mooy laayu ko biir mais maadaama yaa ko may la nga ko may moom moo ko moom. léegi nag alal la boppam la mu dem di ko yàqate kooku dañ koy war a laayu biir bokk na lu ñu jàngoon ci gannaaw alxaajir mooy ki nga xam ne dafa am mbokk mu yor alal alal ja mu koy naan sàngaraaka njaaloo bu doon atti di salaam am na fi. am nañ droit dem ci àttikat ni ko suñu frère bi dañoo bëgg alalam ñu teg ci suñu loxo bu ko defee dootuñu mën a jëfandikoo lu dul extrême nécessité waaye maadaama loolu amul ci sunu société yi li nga man rek daal même bu doon yaa ko mayoon alal ja mooy di ko laayi biir mais amoo droit di ko nanguwaat ci moom maadaama mayoon nga ko moom moo ko moom wallahu subhanahu wa taala alam wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain